suñu mbokk internet Diaspora bi TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii ci seen chaîne Diaspora bi TV waaw comme ni ngeen ñu xamee rek heure bu Sénégal yëngoo daf ñuy jaral ñu daal di jóg dem seeti ñi nga xam ne ñooñu am nañ kàddu ci réew mi bu ñu waxee mag ak xale dinañ leen déglu moo taxoon tey ñu ñëw seet si ku ñuy wax honorable député Moussa Diakhaté bu bokk gis-gis comme nag bi mooy suñu première émission après tabaski ñuy profito rek di leen baalu àq di leen déwénati yéen suñu mbokk internet yi di ñaan yàlla mu may ñu ñu fekke ko ay at yu bari honorable ñoo ngi leen

tambalé ci balu ax bi nak suñu mbokk suñu dëkkandoo li tambalé rëbës ba cap manuel li tàmbalee kaay findu ba sadial lu tàmbalee ruxujude ba ci ndéem li tambalé salam salam ba guy salaan ba yaq jëf bref li tambalé dakar plateau jëm dakar jëm sénégal eh, jëm afrique ak surtout waa diaspora di len balu àq di len bal àq di ñaan yalla

kenn du voté ci jàmm ani noo ko jàngatee démb. waaw jàngat bi mooy ñun jàmm sunu suba yeewu su wóoruñu surtout ñun ñii politique nañ bàyyi xel nii lu dul jàmm jàmm ko gën ku sa suba wu yeewu suba wóorul na booy wax ci lu ñëwagul fii ak juróom-ñaari weer xëy na am na loo xam wala loo mën li am am ba am mooy nii réew mi jàmm fii am réew mi jàmm lañ ko yéene. li Ousmane Sonko wax nag yaa ma ci laaj parce que man ànduma ak Ousmane Sonko d'accord ma ci ñi muy doxale waaye su ma bokkulee. jàmm du am ci réew mi du wax ju yenu maanaa. ñëpp ñoo gis ñoo xam ne lépp la wax dañ koy jëmale ci seen bopp loolu la ñuy wax narcissisme politique maanaam bu dul man du doon keneen moom jàmm ko jik jàmm jik réew mi doon ñaan jàmm mooy am solo su fekkee ne yoon dañu du bokk mënta fexe ba bokk su fekkee ne nag yoon neew yoon waxul ni day bokk dana bokk. alhamdulilah xam ni mu bokk am na ay recours aussi bu ko yoon daane te li ma juum bu ma juumulee li ma xam mooy ba fi ñu ak mambe ñaar dan nañ ko digganteem ak aji sar dan nañ ko deux ans ferme su dee loolu lañ maintenir mooy munta bokk loolu dëgg itam te loolu itam mooy fàttali ni digganteem ak mambe ñaar moom moo yor na ay preuve du état moo jóg de mambay porté plainte demul yóbbu preuve yi wanewul ay preuve ñu ko ci digganteem ak Adji Sarr jigéen moo ko jiiñ ni jëflante nañ ñoom ñaar jëflante bi ñu wax ñu dem ci yoon yoon atte li yoon atte tëj ko ñaari at donc ba tey moom la ak keneen sénégalais loolu nag su fexee moo tax ni mu ni du bokk ba pare mu ni bu bokkul réew mi day nekk ci kaw ah defe naa ni waa réew mi ñu ko yor ñu ngi koy dégg ñu yor kaaraangay réew mi ñu ngi koy dégg nekkatul mbiru politik day nekk mbiru tëkku day nekk mbiru menace loolu nag ñu yor réew mi la intéressé loolu les forces de l'ordre yi la ak président Macky Sall bi nga xam ne mu lañ dénk réew mi ñoom lañ interpellé ñoom la waxal te bi mu koy wax nëbbatuwul ci télé la ko waxee tele France ba mu doon ŋàññi démb parce que loolu tam mooy paradoxe bi France ba mu doon ŋàññi démb tey seen tele yi seen rajo yi ñoom la waxal waxee nii mu waxee yaakaar naa ne warta waxee nii bëgg bok, bokk danaa def tuuba bokk yëpp ay waxin la waaye su ma bokkul dina am musiba ma laay bu musta am ci réew mi def naa ni du wax ju rafet du wax ju kilifa bëgg jur réew di wax ndax réew boo ko ci fitna su la ko yàlla joxee ci fitna nga ko yor kon may wax ni le président de la république les forces de l'ordre les sénégalais de manière générale euh, nañ préparé wu ci loolu jël seen i matukaay yi ci war yëpp ñi mën a wax ak Ousmane Sonko itam bu dee mën parce que man ak moom d'accord ma ak moom mais ñu wax ak moom yaakaar naa ne ku bëgg réew du waxee ni mu waxee sama gis-gis la nag mën naa ci juum itam. waaw est-ce moom li mu wax ne sax bu bokkee kenn du ko teree gagné dès le premier tour loolu foog nga ni mën na ne. waaw xam nga loolu pour man waxu waxu mbër muy bàkku la rek booru xam nga làmb jee boo fa demee bu avant ñuy sëgg bëri mbër mu nekk daan maa mën maa bari doole maay daan man foofu laa ko jàppee rek mais kii doon président yàllaa koy tànn gis nga su weeroo suñu sabab yi mbiru président yi fi yàllaa mooy seet jamono ju mu ko neexee ku ko neex nam ko neexee mu dagg ci leeram jox la ko xëy na day wax rek ni loolu te man jàpp naa ni amul benn parti au Sénégal bu mën a gagner à lui seul des élections présidentielles amul benn ay coalition ñooy gagner te loolu man damay jàpp ni ci lii le maire Dakar waxoon rek Barthélemy ci fuural gi la bokk rek loolu aussi mooy agrémenté c'est moins grave su ma bokkee may gagner ku ne dégg nga ko am na ñoo xam ne bi bi ñu dem élection duñ am sa zéro virgule waaye soo xam je suis le meilleur candidat su ma demee damay daan waa ji yooyu yëpp dafa bokk ci pour man wàccaay yi dafa bokk ci xorom politique c'est moins méchant parce que c'est pas agressif et puis mbër mu nekk tam da nga naan su may bokk may gagné mais man jàpp naa ne amul benn parti au Sénégal bu mën a gagné à lui seul des élections fii ci Sénégal waaw ay bis ci ginnaaw Macky Sall bett nañu bari ginnaaw ba mu xam leen ne du samp dundam ci 2024 yow loolu lu la bett la wala da nga koo xamoon. Euh, bett na ma bettu ma euh, bettu ma parce que tension bi nekkoon ci camp wu président Macky Sall ak ñi mu àndaloon bëgg mu nekk candidat réyoon na ba rëy ni yaakaaroon naa ni dina dina dina dina sedde ci bëgg-bëgg ay nitam yooyu ba def ma parce que bind na ko wax na ko te gisuma fenn ba mu ko bindee wax ko mu waxaat le contraire. ndax bi mu ko bindee ci livre wax ko après li mu wax mooy ni ñëpp dem liggéey bu kenn wax ci mbiru mandat ñu ñëw jëmmi jamono laaj ko mu ne ma dama nii non nii wii ba tey kon waxu ci mbiru mandat ba keroog bi mu ne bu jotee dinaa ci wax bi mu jotee mu wax kon duma ma bett ndax ñaari schéma ñoo mënoon am ndax damay faral di ko wax man mi bokk naa ci pôle de porte-parole bu coalition Benno Bokk Yaakaar ou majorité présidentielle réunion bi mu ngi def avant une avant président di wax kenn ci ñun xamuloon ban sens le président doon jël mais bokkoon na ci alternative yi bokkoon na ci possibilité yi nga xam ne nii sóoraale woon nañ ko suñu schéma d' intervention yi ba tax na kon donc en tout cas rëy na def na lu kenn mos def te ku def lu kenn mos def dégg lu kenn mos sa dégg. mais loolu dafa mel ni am na lu jaxase ci biir APR de ndax ñoom dañoo taxawoon ne Macky day bokkaat force. waaw loolu loolu li wax la rek mooy li Ousmane wax fële rek ni may gagné. Macky day foogaat par force moom du waxu démocratie waxu xër la rek militant bu xër li mu jaxase nag lépp la jaxase carte yëpp lu Macky Sall brouillé carte yëpp ndax kat euh, ci opposition bi ñu ci ëpp seen campagne seen élément de campagne mooy non au troisième mandat bu fa loolu jógee ñoom amatuñ benn argument di nga dégg ñu bëri dootoo leen ci ñeneen ñi danañ changer aussi thème bu ñuy waxtaanee mouvance présidentielle bi aussi bari na ñoo xam ne aussi seen yéene moo doon président mu bëgg suñ ko teg nag ci ñu bari moy euh, xeer guñu ñu xeer ci président Macky Sall ak aussi liggéey bu mu liggéey en terme xam nga ba léegi nit ñi waxuñu bilan dafa warta ta bokk constitution bi nee na te presse bi bind ni le président a renoncé à sa troisième candidature tubaab nag bu renoncé mooy loo xam ne ne am nga àq sa àq la nga ni du ma ko def mooy renoncé kon jàpp naa ni waroon na mën a bokk ndax dara terewu koon mu ni candidat la ndax conseil constitutionnel rek moo mën a valider candidature mais moom mu jàpp ni comme waxoon na ko rek day respecté muy éthique li may wax éthique de morale de moralité moom la def foofu respecté kàddoom mais jaxase na bopp yaa ngi jeexi jaaxa mais dégg naa mu ngi wax ak ay ñoñam wax na ak partem dina wax ak ay coalition dina wax ak ay partenaire am te jaakaar naa ni su garder le bloc intact effectivement mën na gunge kii ñëw nekk candidat mu mu mu mu mu am des chances pour gagner mais li ci am solo te ñu war ko bàyyi mooy ni mu ko jaxasee mooy guleet Sénégal du wax tout sauf du folli day fal té lool nak dina ci am solo trop ci kanam touti pour ñu xam mbeur mu nekk lum lambo ndax mbir mi ay waxi neen la wala ku nekk am lum andil Sénégal lu gën li nga xamni ni mom la fi président Macky Sall defagu waaw honorable ndax japp nga ni situation bi jaxaso bi ak menace yi mën nañ ci organiser ay élection waaw ndax dak lepp a dox ci réew mi de menace yi nak c'est vrai parce que dégg na président wax ci dégg na le ministre de l'intérieur wax ci té man ma ngi di aussi. def géopolitique di def science politique Hamna, euh, naa xam ni Yengu Yengu, amna fu soriwul ci sunu rew ci ay nit yu pour ko rawatina su ni rew mu yalla andi pétrole ak gaz bu Sénégal dana ñàkk lu ni am na lu ñuy wax ay réseau dormant am na seen yéene bu ñu yeewoo su bak ngoon mooy fexe réew mi nu muy jaxasoowee ba ñoom ñu mën a këf suñu pétrole ñu bañ cee jariñu mais jàpp naa ni force de l'ordre yi jàpp naa ni l'état du Sénégal dana jël matukaay ci war yépp ba élection yi ñu jëm ñu def ko ni ko président waxee date bañ ko waxee mu jaar yoon ki yàlla di fal pour nekk ci bopp Sénégal yàlla fal ko ñu continue di ñaan yàlla jàmm ñun ñëpp ñoo koy dox nag yow journaliste bi man homme politique bi chef religieux bi état opposition ñun ñëpp ñoo war a conjuguer même verbe mooy jàmm ndax jàmm ci la lépp xàcc. waaw est-ce que waxtaan nekkul du gën pour Sénégal. mais waxuma la pour Sénégal rek àddina loo gis ci waxtaan lay mujjee dialogue dafa bokk ci luy suuxat démocratie dafa bokk ci li ñuy wax les temps.

président de la république ci coobareem moom moo jël initiative ou def ko woote waxtaan mu jur am solo aussi au niveau économique au niveau social mais surtout au niveau politique kon may ñaan ñep ni un homme politique dal, surtout bu des démocrates, la dafa wara privilégier dialogue à tout moment Lo d'accordul nga ne d'accorduma waye li ngeen d'accord te kenn mënu ko seddo muy réew mi ngeen bok ci d'accord jéem a avancer ci leneen. ba tey euh, ci waxtan bobu Macky Sall nee ubbi na ay buntam pour waxtan. Sonko nee paré na pour sacrifier lépp pour apaiser dëkk bi. est-ce que mën nañoo njort ne Macky ak Sonko ci waxtaan la ñuy mujjee. Euh, li leer ba leer daal mooy ni wax mu Macky ak Sonko coow loo gis ci waxtaan lay mujjee kañ la ndax Macky la ndax Macky le président Macky Sall moom juróom-ñaari weer ku fi dese ci discours am dégg naa mu ni réew mi dana ko teg ci yoon organiser élection yu yoon dem yoonam euh, Ousmane Sonko nag moo am avenir politique bokkuma ak moom faruma ak moom waaye moo am plus à gagner ci waxtaan que le président Macky Sall. ndax président kuy jeexal di dem la kii dafa bëgg de pare na pour def yëpp dañ koy sant yàlla ndax gis naa nag euh, donte ci discours bi am na ci mais gis naa ci beaucoup beaucoup beaucoup aussi de de de glissement vers l'apaisement ñu saluer fu munti jógee ku wax même bu fekkee ni li wax naan ma pour ay la pour pour bañ a nit ne def na glace ci waxam na lool mais ci wax ji déggatuma ci gatsa gatsa ci wax ji déggatuma euh, te li wax ci li wax li ma dégg mooy dañ ma téye te du sama coobare dañ ma loolu laa ci gis à part élément kaw boobu wax li des ci wax honnêtement parce que man communication laay jàngale boo jàngee le discours da ngay le vocabulaire en dehors de glissement tout le vocabulaire était dans l'apaisement était dans une volonté réelle ndax moom wax nee na kenn du teg ci ci ci loolu ki nu mu tuddatee ci putam pour mu pour di ko di ko woo ci dialogue waaye pare na pour def ay sacrifice loolu la ñëpp di ñaan ñëpp ñëpp def sacrifice pour waxtaanee Sénégal waaye nag am na loo xam ne ni kenn mënu ko waxtaanee kenn mënu ko maye ndax yoon moo ko moom li président mën dina ko maye muy grâce am muy amnistie par jaar ci assemblée mais am na loo xam ne nii ci yoon la nekk fekk yoon parewu ci

ànduma ak moom dama ko topp et je dama ko doyloo lu mu ma wax rek loolu la te ba fii soppeeku amagul euh, maintenant nag waxuma la mouvance présidentielle classe politique sénégalaise mooy defarawaat seen toogaay Macky Sall le président Macky Sall dafa verse carte yépp dafa bett ba bett na ñu bëri ñu bokk ci camp ba tax na defaraatut moom dina am ndax day renforcé wu xam nga nit mën na yokk mën na tas yokkuwaat comme benn mën na génn fukk dugg tout ça la comme lu bees la luy door a am ci réew mi la day baax jamono ju ñu toll jàngat ak seetlu ci ku xam yoonu politique mooy ëpp solo bëgg def des pronostics parce que jeux yi dañu ouvert lu ne mën naa ne fi ñu toll nii ku ne mën naa ànd ak ku ne ci lu ne ba tax na comme waxtaan a ngi am ci kaw ak ci suuf day baax nag léegi léeg nga am taaylu seetlu mais effectivement mën na ne risque la. parce que ñu ngi dégg ay candidat am na ñoo xam ne bu dee tabbuñ leen mën naa am ñu ni ñoom dañuy dem mais président Macky Sall ci waxam nee na su ko nit ñi déggoo topp ko mën na leen conduire ñu gagné mu gañewaat élection yi te su ko waxee nag mën naa ko gëm ndax 2007 euh, ñun ñi ñu àndoon ak moom ak ñeneen fal président Ablaye Wade 2012 mom ak ñoo ñoñom ñu ànd mu falu 2019 moom ak ñoo ñoñom mu ànd mu faluwaat kon su ne 2024 mën na jàppale ay nit ñu falu dama ne lu mën a xel mën a incha allah. Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba wala Abdoulaye Daouda Diallo dafa mel ne Benno Bokk Yaakaar li muy rëy rëy yëpp waa APR rek ñoo war a jiite loo wax ci loolu. ah loolu de xaw ma ci dara fi ñu toll nii xam nga man nag eh, yàlla daf may dimbali duma dox ci rumeur ndax loolu gisuma fuñ ko bind yéen ñii yéen a koy sooke pour créer wax pour wax loo nit ñi bul fàtte nag tas xibaar taskatu xibaar ngay wax ngay waxal prêcher le faux pour avoir le vrai.

man je suis membre de la coalition de de la du groupe parlementaire Benno Bokk mais au niveau politique euh, bokkuñu ci Benno Bokk mais on soutient on a soutenu la la la la la mouvance présidentielle avec le président Pape Diop et le Bokk gis donc bu bu waxtaan woo jotee kilifa yi dinañ waxtaan dinañ déggoo te mooy li ëpp njëriñ garder des blocs am chance su gagner, moo ëpp solo mais ni ma la ko waxee rek waxuma la euh, coalition yi mais parti s'en bop dina bari yëngu-yëngu parce que acte président Macky Sall bi fay tourner benen page bari nañu sen politique nek en sel ñu promotion politique en sel mais bari nañu dem retraite aussi ci acte bi président pose, ñu ci bari sen carrière day day gëna lëndëm pour comme pour dire euh ku ko ku ku bëgg xam dal lu leer Yonil Yag, Yag yàgg yónnil yag yàgg soriwul ci fan yu néew war na recevoir coalition yi te le temps presse parce que bientôt août on doit aller war nañ xam les candidats pour jublu ci parrainage kon jarul yàkkamti li am solo bu am solo rek mooy Sénégal yàlla na am président bu def li président Macky Sall def wala bu def lu ëpp li président Macky Sall ndax man a mën a gi bari na. waaw ndax da fas yéene présenté benn candidat. ah loolu di mënuma la cee tontu naa yor kàddu ko gis-gis gisuguma président bokk gis-gis bokk gis-gis réunion ci mais war nañoo waxtaan ci loolu nu mu gën a gaawee mën a yeewi suñu ay militants mën lañ gindi ñoom itam ñu xam taxawaay bi ci taxaw du ñàkk nag président Pape Diop dinañu dégg su ko defee du ñàkk dina woote parti bi ñuy waxtaanee ban ban position la ñuy am ak nu ñu ciy taxawee. ah ngeen mën a demal seen bopp. Euh, dama ni loolu bu ñu ko waxtaanee xam nga boo yoree kàddu parti nawlanteeg waa parti bi da ngay moytu di wax ci sa coobare bopp waaw lu ci mënta doon rek parti bi bu dee tudd xam nga président Pape du ku ñuy présenté ci réew mi. du jaar-jaaram du lépp waaye loo loo gisee waxtaanee la te comme parti bi yéegu ci yàbbi ci te ma xam leen loolu yéen li ngay def yépp ay rappel la pour dugal ma waaye du ma dugg man daal maa ngi déglu sama parti ba mu wax su waxee itam nii ma defee yow boo ma woowee ma wax la ne lii la sama parti waaye fii boobu maa ngi déglu le président Pape Diop bi nga xam ne may porte parole nekk porte parole bokk gis-gis lu ci parti wax rek ma andil la ko. kon nag baax na dinaa la woo. baax na dinaa la déglu si booba euh, ñu dégg Birahima Seck bu Forum Civil moom nee na erreur mënul weesu bàyyi Khalifa ak Karim ñu bokk ci élection yi ginnaaw bi leen yoon daanee ci wàllu luubal xaalis ana noo ko jàngatee. waaw mais dama ni Je suis ay man xam nga ci Karim wat dama ci am position bu mos a changé man créé ci créé ci jugement ou c'est ma position mosuma ci varié ndax juridiction d'exception dans une démocratie maintenant si bu yalla en yone def limi def pour apaiser situation bi bi yone pare dafa am lu lu président ci sañ-sañu mom njitam njitu rew mi ci wote dal consort mu waxtaan ak ñooñu waxtaan xool yoon buñ mëna buñ mëna buñ mëna accompagner ñooñu position bi mu am dama ko koy nangul parce que loolu moy démocratie aussi ku nekk da ngay set la la doy mais man dal politique ñi tax ñuy def politique manam classe bi bu ba am luñu ñu man dama koy valider parce que man dama gëm consensus dama gëm waxtaan lu nit ñi ni bu juboo ko muy khalifa muy Karim comme muy Kenen aussi ko xam ni japp nañ ni effectivement président bokku na ci luy apaiser réew mi ñu dox ko ci jamm je suis entièrement d'accord sur ça